وكل حمدا للمستوى للمصطفى للمصطفى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاحد أنا يسكن أكد في كوني أغمدنا المختار نور الكون أغمدنا أخمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فأمد صدر العلوم نافعات أفجمت لم ينني شك ولا توقم ولسوى قلبي ينقل وقم قلبي يسنه الجميل عن قبيح وليقود نور في مالي بي علمني من لوقي والقلم من يقود علم ما لم أعلم زلم نفسه الذي عداني لأنه البارس من عداني يعصمني الباقي من الأقدار في دار دنيا وتلك الدار مع النبي المنتقى المنير زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي وقبى بنوري من زن خيرا لا يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودور من زن غير الله يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودر أدر والنفع من الرحمن ليس من البلدان والسودان aduru wa nawu guddi muy guddi gi jagleel gën gi mindeef muy sallallahu alayhi wa soxna kinne daf ni woon soxna kinne ne rek ni ko di nga def reer rek yow ak say ñooñ ak say mbokk ak say soppe ma ne woon naa jaar nuyu leen ndax fi mu jëm ci guddi gi bari na ne sant na la bu baax ci sa taxawaay ne mi ngi nuyu mbokk yëpp di leen safoo uh, di leen safoo di ñaan yàlla di ñaan yàlla ne guddi gu mel nii yàlla na ñu ko teewe at yu bari ne yàlla na guddi gi ak màggaay gi ci nekk yàlla na yàlla jaare fa ne faj sunu aju ñu ñëpp ne ci barke borom guddi gi muy sayyiduna Muhammad bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ne guddi gi nag waay waay seex bi ne ëmb na lépp ëmb na yiw ne ëmb na leer ne ëmb na barke ne lépp dëxëñu ne ci borom guddi gi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mu yàlla taggee nag nu ne ci alquranul karim ne ba ay ñu mag ci àddina ne feelu ko ne ci taggin wi donte nag ne kenn du seen sax pëndu tagguk ne sunu borom bu jëm ne ci gën gi mbindéef soxna ki ne daal yow ak say xarit say njaboot say soppe sant naa leen ziyaar naa leen ne ci guddi gi di la sant bu baax a baax ne ci téere alquran bii nga ko may ne ñaaxaat nga ko waaye yi tamit da nga feddali kóllëre gu dox seen diggante nga xamante ni bi nga ko xamee ba léegi yaa ngi taxaw ci yiw ci wér na ci wér ci taxaw nee nee ci wér ci taxaw taxaw bu wér nee ci wetam yënguwuloo nee ba yàlla def tey jii nee li ko lii ak yow nee dootul mbirum politique nee dootul mbirum àddina li ko lii ak yow mooy ñu bokk ndey ak bàyyi mooy ñu soppante te yàlla tax nee ñu soppante nag te yàlla tax seen kër aljana la yàlla nañu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nuyu ñëpp yàlla na yàlla faj sunu yaaju ñun ñëpp di sant ñëpp am na mbégte bu wér a wér maa ngi rocceeku nank bàyyi leen ngeen yeggale tagg sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla mayaat nu ñu dajewaat fi nee na ci jamono yu mbégte yu kawe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu tàllal leen amin amin amin amin kon nag ñu bàyyi jànkat yi ñu continuer sëñ Fallu ak sëñ Fallu bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun وسلام في مكاننا وسلام في مكانتنا وسلام على عباد الله الصالحين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين